màggal gi moom kenn ku ne xam na ne li fi dajale mbooloo mi mooy soxna jaara buso soxna maryamu buso jaaratullaahi moo fi dajale mbooloo mi li ko waral itam mooy dafay jigéen joo xam ne mën naa ne euh, ni mu liggéey yàlla moo jafe mhm. ndax dafa njëkkante ci digganteem ak boroomam liggéeyal ko liggéey bu sell bu ko yàlla gërëmal dëgg la li ñuy li ñuy wax ne sëñ Touba daana wax ne bi may liggéeyal yàlla jommalu ma mhm. waaye bi ma yàlla fay naxum. ndeysaan soxna jaare it kazalik mën nañ koo delloo lool. moom itam bi muy liggéeyal yàlla jommalu mhm. waaye pay gi bi mu dikkee it ku ne xam na ne yàlla naxu. Mhm. ndax li fi daje tey moom jëmmam rek a tax ñu daje. te mel na ne ci histoire xamuñu ci àddina fenn foo xam ne. Euh, ndaje mu mel nii dana fa am. ñu jagleele ko jigéen. waaye moom Porokhane li muy enclavé enclavé ndax mel na ne booy xool Porokhane Gàmbi la gën a jege sax. ci ci réew mi ñu jóge muy Touba ak feneen ak feneen. Mhm. waaye ginnaaw jëfi yàlla dara mënu ko suul. Mhm. te sun borom nee na ci alxuraan ku ma liggéeyal te sellal liggéey ba. Mhm. dinaa la fay fay gu rafet. dëgg la. te danaa la siiwal. loolu feeñ na ci soxna jaara tey. poroxaan gi mu tëdd. ab dëkk la ci biir Saloum. waaye li valeur bi mu am ba àddina bépp jóge fu nekk ñëw wàcc fi tey. soxna jaara mi fi tëdd moo ko waral. te liggéeyal yàlla liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ko liggéeyal. loolu moo tax tey ci biir réew mi fii ci poroxaan. tey daanaka mënoo jaar fenn ba dox. dox bu normal. Mm-hmm. te dara waralu ko lu dul soxna si fi nekkoon di jaamu boromam di fi lëggéeyal yàlla te cosaanoowu fi aw askanam dëkkuñu fi waaye mu ñëw fi gàddaay ñëw fi suuf si di suufu sun borom ni ko yàlla waxee suufu si yàlla yaatu na foo ko mën a jaamoo baax na mu ñëw fi jaamu yàlla jaamu ko rafet googu mu ko jaamu loolu moo waral lii